إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين mbokk jurit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom suñu xutba tey bi ñu ngi koy jëmale ci fàttaliwaat ndawi lislaam lan moo war a nekk seen taxawaay ci diine ji seen taxawaay ci kaw suuf digganteeg seen borom boobu nga xam ne mooy aji bind lépp mooy aji xéewal lépp ca wax ci téeréem ne bi ñuy bind nit ak jinne bind ñu woon lu dul ngir ñu jaamu ko kese soxlawul ñu wërsëgal ko mboolem wërsëg wu nekk ci ñun moo koy joxe ca mooy borom kattan gi nga xam ne dara tëwu ko mbokk yonente boobu sunu borom boobu moo yónni woon suñu yonente ba mu nekk ab jaamam nekkoon royukaay bu mag ba ca mbooleem ña nga xam ne ñoo bëgg a jëm ci seen borom loolu bu paase fokk ñu xam ne ba yàlla sosee àdduna ba tey amul benn société boo xam ne am na benn réussite ca la nga xam ne ca la nekk lu dul man ko jaare ci mag gi ay ndawam bu ñu xoolee tey jii diine yàlla ji na ko jekk la ko daan dooleel la ko daan tasaare mooy ndaw ña keroog ba Ibrahima xaritu yàlla ba di gàddu aw simmiñam jëm ca xërëm ya di leen toj di tasaare waa dëkk ba ba ñëwee lu ñu wax ñun day kenn dong ci dëkk bi lañ déggoon mu leen di critiquer muy ngóor suusu ñuy wax ibrahim kon ibrahima nekkoon ca la nga xame ni nii mooy ndaw yi jamonoom ca la ibnu abbas doon waxee ne yàlla day musul yónni benn yonent lu dul dafa nekk ndaw ca ndaw ñi ngi koy tënk ci diggante nit ki fi mu amee fukki at ak juróom ba ñeen fukki at ay bokk la xale bi nga xam ne fi nga juddoo la ba fukk ak juróom nga xam ne kenn commencé lu bindal bakkaar waaye loolu la wax mboolem yonent yàlla bi mu leen di yónni amaguñu quarante ans wala maximum quarante ans la ñuy am comme suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam xoolal Ibrahima boobu borom baa nga ñuy nettali benn ndaw bu juddoo ci loxoom nekkoon benn doomam waaye ba ko yàlla diggalee na ko demal nga rendi ko bim ñëwee waxtaan ak moom daf ko daal di wax ne ay sama baay defal li la yàlla sant danga ma fekk ma bokk ci ñiy muñ loolu muy wañu ne bépp ndaw war naa taxaw taxawaayu xam ne kat mi ngi ci benn étape bu doon te ne li ñuy wax mooy étape d'or te mooy li gën a tedd li gën a yàgg ci dundu doomu aadama rasul sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne sama xeet bii day seenu dund mi ngi nekk diggante juróom benn fukki at ak juróom ñaar fukki at nee na lu niiw ñooy romb juróom ñaar fukki at sama xeet bi loolu nag mbokk boo ko xoolee la ci digg ba gën caa am solo xoolal fi nga amee quinze ans ba fi nga amee quarante ans da ngay xool ne am nga fa la nga xam ne mooy vingt cinq ans loolu Ismaïla alayhi salaam joxe ci misaal ci ne yow ndawal julit nekkati kat fa nga xamee ne majeur nga fa nga war a commencer di gëstu lan mooy ndigalu yàlla nga taxaw ca ak loolu lu métti métti te jàpp naa ñaari borom xel du ñu werante ne amul benn ndigal bu gën a métti tëddal ñu rendi la abadal waaye gis nga nam ko nangoo woon mbokk jullit bu ñu xoolee yàlla bi mu yónnee yonent yi jiitu ni ma leen ko waxee jox nañ ci benn xissa ci ñoo xam ni ay ndaw lañu ñu nekkoon ca la nga xam ne jamono gannaaw isa tuuti yàlla subhanahu wa taala dogal xeet bi yépp dëppoo di jaamu xërëm xeet bi yépp ñoom ñu nekk benn équipe bu juróom-ñaari ndaw ñoo xam ne ñoo daje ne ñun lii suñu xeet nekk duñ ci dugg mukk dee ñu ko gënal xam nga lu ñuy def nañ gàddaay nañ dem làqu ji ca la nga xam ne mooy montagne ba nekk ca àll ba ndax fekkoon na feet goo xam ne buur bi da koy woote ñuy màggal xërëm yi képp ku ñëwul lañ lay rey ñu dem làqu ji foofee ngir rawale seen diine yàlla nelaw loo leen fa ñetti téeméeri at yu topp loolu it mbokk ba ñu ko yàlla ñettali ah yonente bi alayhi salaam sunnaal ku mën na jàng ak juma ju nekk suratul kahfi mi ngi jàngal bàyyi di jàngal ndaw ñi ndekete kat position ndaw warul nekk position position ndaw warul nekk position al toppe ndax kat gis ngeen ñoom dañ ne suñu xeete ngi li ñuy nekk duñ ci dugg mukk ay yow kon ndaw da nga war a xool lan mooy sama warugar lan mooy sama taxawaay sama digganteeg sama boroom bu ca dëkk ba nekkee xayrun sama famille ma nga ca xayrun waaye bu doon tane ña nga bokkal ñépp kenn nekku ca réew ma nga nekk yépp kenn nekku ca du tee nga jël asxaabul kahfi di ndaw ñooñee dem làqu ji woon te montagne ba ngiree def la nga xam ne nii mooy la sa borom gërëm suñu borom yónni suñu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem mag yi dëkk ba yépp weddi ko mag ña mboole seen kenn gëmu ko ca ñan ñoo ko gëmoon mooy abubakar saddiq moo gënoon a magi te ñu gëmoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booba mi ngi amoon fanweeri at ak juróom-ñett bokk nañu ko gëmoon kii nga xam ne nii mbokk moom mooy omar ibnu alxataab radiallahu anhu nga xam ni bi nga xamee ni mi ngi wëlbatiku di tuur di dugg ci lislaam mi ngi amoon la nga xamee ni nii moom mooy lu jege fanweeri at nga jóge fa ñi nga xamee ne nii mooy usman ibnu affan mi ngi tolloon ci fanweeri at ak ñeent nga jóge fa dem ci ali ibn abi talib daani ko soriwul woon fukki at bi muy dugg ci lislaam keroog ba muy jiite xare badr daani ko ñaar fukki at yu teg tuuti la am radiallahu anhu nga xool ki nga xam ne mooy zubayru ibnu al awam mbokk ku mel noonu nga xam ne moo jëkk a bocci jaasi fi sabilillah ku mel noonu jamono bi nga xamee ne mi ngi dugg dugg ci lislaam fukki at ak juróom benn dong la amoon nga ñëw ci ki nga xam ne mooy talxata ibnu ubaydallah wala saad ibnu abi waqas nga xam ne moom la ñu tuddee suñu jàkke ji mooy ki jëkk a sànni fitt fi sabilillah da ngay gis ne moom bi muy dugg ci lislaam mi ngi am fukki at ak juróom-ñeent gannaaw ba talxata ibnu ubaydallah bi muy dugg ci lislaam presque soriwul la nga xam ne ni moom mooy quinze ans gannaaw ba abdurahman ibnu awf bi muy dugg ci lislaam mi ngi nekk ci fanweeri at gannaaw ba abu ubayda amir ibn al jarra bi muy dugg ci lislaam mi ngi nekk lu paase ñaar fukki at tuuti kaleen mu jéel di saïd ibnu zayd bi muy dugg ci lislaam moom it mi ngi toll ci ñaar fukki at mbokk ñii ma lim mooy équipe bi waroon yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu tudde leen al mubashiruuna bil janna mooy fukk ñi yonent bi jàkkaarloo woon lim ko ci kanamu sahaaba yi ni ñii àddina lañ jëm fukk lañu woon tey fa lillahi alhamd bokk ne sport yi am ci àddina bi yépp sport bi leen domine mooy football football boobee da ngay gis ne équipe bi dañ koy composé ci fukki nit ak benn fukki football kat ak benn góol ngan la waay yéen ndaw ñu xam leen nit seen royukaay yi mag ya mooy fukk ñooñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ñoom àjjana lañ jëm ka nga xam ne moo nekk ci seen gannaaw di leen surveiller ca it noonu la yonente bi alayhi salaam meroon bu armée bi daan dem mooy féete gannaaw di surveiller kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy les onze yi nga xam ne ñooy seen équipe yi ngeen war a bàyyi xel roy leen ngiree bu ngeen bëggee gañe àdduna bëgg a gañe la nga xam ne moom mooy alaxira ñeenti xalifa yi yéen ñépp xam ngeen leen abubakar omar ousmane ali gannaaw ba zubayru ibnu al awam gannaaw ba Saad ibn Abi Waqas Talhata ibn Ubaydallah Abu Ubayda Amir ibn Jarra Abdurahman ibn Auf ak Sayid ibn Zayd ngalla waay yéen ndaw ñi jàpp leen tur yooyee def leen ay royukaay mbokk suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy gàddaay jëm Madina la nga xam ne moo taxoon gàddaay ga réussir ndaw ñaa ca jàppoon jamono boobu ali bi talib da ngay gis ne daanaka soriwul la nga xam ne mooy ñaar fukki at moo nangoo sacrifié dem tëdd ca néegu yonent bi salallahu alayhi wa sallam waa màkka jàpp ne yonent bi mooy tëdd bañ demee ba yër ko ma nga sàngu ñu ne na baax na léegi nag toog di nga xaar pour mu génn ñu rey ko fekk yonent bi génn na dem ca loolu bi mu koy def mi ngi doon risque bakkanam ndax mënoon nañ ko rey bokk na ka nga xam ne benn soxna bu jigéen soxna di doomi Aboubacar Asma bintu Aboubacar mi nga xam ne moo doon dajale la yonent bi waroon a yóbbaaloo ba bis bi muy ñëw fàtte lu mu takkee mbuus ya lam takke woon robbam ba la jël dagg ko ñaari parti benn bi mu takk ci mbuus yi beneen bi mu takk ci rob bi ñu tuddee ko borom ñaari takkaay ya ay zaatu nataqayni loolee mbokk day wone ne kon góor ña ak jigéen ña ñoom ñépp a yemoon ci xam seen rôle ca la nga xam ne moom mooy lislaam mbokk madina gee nga xam ne fa la lislaam a amee ndam keroog ba yàlla di yonente bi alayhi salaam di ne ambassadeur njëlbeenu ambassadeur bi ñuy yóbbu ci lislaam mi ngi tudd Mus'ab ibnu Umayr jamono bi ko yonent bi alayhi salaam di yónni fanweeri atam matul mu dem Madina di leen jiite di leen jàngal moom moo woo Saad ibnu Muaz ci woote boo xam ne nii xikma bu réy nga ca xutba bi du xat ci xutba waaye ala kulli xaal moo naxanteeg moom ba ka nga xam ne kilifa la woon ci giiru Xasraj mu convaincre ko ba mu dugg ci lislaam saat boobu ca la dajale mboolem ay mbokk arabam ne leen xëy yéen yàlla day tànnal nañu diina ju mag ji diina ju moytu xërëm ji bis na ci tey day dugg naa ci ca xam leen ne yéen waa xasraj amu ci kenn tey koo xam ne danaa taxaw di waxaat ak moom lu dul daa dugg ci lislaam du góor du jigéen yàlla ci baaxam xutba boobu mu def mboolem waa xeetam dugg ci lislaam loolee benn jeune moo joué woon rôle boobee di musab ibnu umayr yonente bi salallahu alayhi wa sallam bokk na ko mu joxoon drapeau xam-xam muy muaz ibnu jabal bi nga xamee ne nii bi mu koy nomee di ko yóbbu ca yemen daanaka ñaar fukki atam la ca teg bariwul loolee mu nomee ko fa gouverneur ca la dem jàngal waa Yemen ba Yemen tey jii nekk ci république ya nga gën a rëy ci république islamique yi loolee mbokk mooy seen rëyukaay yéen ndaw ñi xam leen ni ndawi lislaam yi démb day jàpp ñu woon na àdduna foogree rek la jàpp ñu woon na àdduna sport ak musique rek la jàpp ñu woon na àdduna ngir réussir dajale alal rek la jàpp ñu woon na àdduna ngir dàq ay diplôme ci njàng rek la waaye dañoo jàppoon na àdduna tool la boo xam ne nii dañ koy war a xëy ngir bay lu ñuy mën a jëriñoo alaxira te ña ca gën a réussir ña ca gën a man loolu mooy la nga xam ne mooy ndaw ñi mbokk ndawi sahaba yaa ngi noonu xatta keroog xare badr xeex ba fa amoon soo gisee ñu doon xëccoo ba yàlla di wax naan yasalunaka anil anfal ñu ngi lay laaj ci nga ñaayu ni muy demee parce que ndaw ñi rek ñoo xeex xeex yu tar ya keroog mag ña taxawoon ca gannaaw pour nekk secours loolee mbokk ñoom kon ñoo taxawal diine ji ñoo tasaare diine ji yal na yàlla fayal ñu leen ñoog seen i bàyyi te dajal ñoog ñoom ci àjjana yi firdaws yi gën a kawe mbokk ju leen xam leen ne yàlla daa bind ndaw bind ci moom benn kattan bind ci moom ak yëngatu kattan googee nag il faut société bi naxante ak moom ñu fexe ba teg ko ci loo xam ne day nekk njëriñam nekk njëriñu société bi wallahi bu loolu amul kattan boogu fokk ndaw génne ko bu ko defee dana ko génne ci loo xam ne dana ko lor lor société bi lan moo tax agression bi du jeex du xaat lan moo tax fitna yi nga xam ne du jeex di xaat parce que ndaw ñooñee kenn yaru leen ndaw ñooñee kenn joxu leen ay liggéey ndaw ñooñee da ngay gis ne dañu débu soolu xamuñu fuñ jëm looloo tax kattan googu ñu koy def foofee loolu moo tax ba da ngay gis ne dana xaw a raar tuuti sax li ngay dégg agression ci banlieue bi nga koy dégg fond de résidence ndax ay xale nekkuñu fa nga koy dégg almaji ndax ay xale nekkuñu fa naam parce que xale yooyee dañ leen a teete ndax moyens yi seen bay am waaye loolu mu lay jàngal ne kon ndaw bu mu mën a doon daa soxla ñu teete ko soxla ñu ah saytu ko jaarale ko ci yoon boo xam ne énergie boobu yàlla def ci moom dana ko génne ci génneel bu baax ay yéen ndaw ñi ngalawaay bu seen bàyyi deful seen devoir it fexe leen yéen def seen devoiru bopp fexe leen xool ana naka ngeen di moytoo lépp loo xam ne ay gàllankoor la ci ay royukaay yoo xam ne royukaay yu bon la xam leen ni ay ndaw ñépp ñoo ko soxla su ko defee fexe leen di déglu li leen seen bàyyi di wax day leen déglu li leen seen jàngalekat yi di wax mbokk ndaw kàttan la am waaye xamul soo demee ci philosophe tubaab yi dañ naan ha si je ne savais si vieillesse pouvait ay waay bu doon tane ndaw xam na kon day fi mu jaar du fa jaar waaye cay mag mi xam cay bu doon tane ba muy xam-xam bi mënoon na kon day doon na def loo xam ne ni lu rëy la te mooy sa baay daa jaar ci àdduna jaar ci ay tolof tolof ku mel noonu xam na lam la wax moytul ñii bul dugg fii del def lii sa intérêt rek moo ci nekk loole ngeen bàyyi ci xel bu leen jàpp ne yéen a gën a muus seeni bàyyi déedéet bokk julit góorgóorlu leen topp seen i ndigal fexe leen ngeen góorgóorlu seen kemtalal kattan xam ne day jaamu yàlla ci ndaw lu metti la jaamu yàlla ci ndaw lu metti la ndax bakkanu ndaw seytaane da koy puus ci bànneex waaye day boo góorgóorloo ba sa ndaw loolee nga teg ko fi neex yàlla yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na dana am juróom-ñaari nit yu ñuy keral ca keru keru arsh ga yowm alqiyaama suñ wootee njiit yu maandu ya ñañ cay teg mooy ñi nga xam ne ci seen ndaw lañ commencé woon di jaamu yàlla ngalawaay ndaw góorgóorlul énergie boobu la yàlla may jot googu la yàlla may suñu borom yàlla subhanahu wa taala da la koy laaj yowm alqiyaama bokk na ci ñeenti xiiwal yi yàllay laaj jaam bu ñëw yowm alqiyaama yow sa ndaw gi ci lan nga ko jeexale nga la way sa lay ëllëg bu mu nekk ci musique ak sport waaye na ngeen góorgóorlu rafetal lan ngeen di lay ëllëg ca lay ba mooy lan mooy yàlla da leen a jox ay misaal misaal bi jàng nañ ko sànq saabiquun al awalun min al muhajirin wal ansar wal lazina tabauhum nga la way xam ngeen seen royukaay mooy sahabatul kiram ñi yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam yaroon kii di jundub ibn abdullah nee na ñun day nekkoon nañu ay ndaw war yonente bi fa taallamna al iman qabla an nataallama al quran jëkkoon nañoo jàng luy ngëm yàlla wéetal yàlla màggal yàlla doog a dem nag jàngi al quran summa taallamna al quran fazdadna bihi imana ban demee jàng al quran nag lan ca dolleeku la nga xam ne nii moom mooy ah ngëm yàlla ñu daal di boole jàng nag al quran ak jëfe la nga xam ne mooy al quran ngan la waaye ndaw ñu góorgóorlu leen seen âge bii ngeen fexe ba góorgóorlu ci jéem cee jàng lu ngeen man ci xam-xam ibnu abbas lañ leen ko waxe nee na amul kenn koo xam ne nekk na borom xam-xam bu mag bu ñuy tudd lu dul sag ndawam la jàngi woon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk julit gis nañu ne ndaw yëwuroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci benn échantillon boo mën a jël mooy juróom ñaar fukki ndaw yooyu nga xam ne yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam da leen yónni woon te ñu rey leen fa ñuy tudde bi'ru mauna ay ndaw lañ yoo xam ne dañ daan ñëw ci jàkka ji suñ julleegee ba pare bu nit ñi tasaaroo ndekete ñoom ñu ngi joxante rendez-vous ci benn place ci yote àll bi fa la ñu nekk guddi gi yépp di jàng leen ci alquran di jàng leen ci diine buñ demee ba suba ñu daal di dem taxan matt mu bari rooti ndox mu bari indi ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir gan yi nga xam ne dañuy ñëw ci jàkka ji mujj nekk ñoo xam ne nii alquran ca ñàkk a gën a not la a rasul sallallahu alayhi wa sallam am ay giiri arab yoo xam ne dañoo tuub mu yebal leen mission na leen dem leen su ngeen demee ngeen tasaaroo ci giir yooyu jàngal leen diine bañ demee ba ci benn place gaa yi daal di leen fay ndar képp daal di leen di rey ñoom juróom-ñaar fukki yépp a rasul sallallahu alayhi wa sallam toog na fukki fan ak juróom yoo xam ne heure bu jullee di xunuut di ñaan yàlla rëbb ñooñu nga xam ne ñoo rey gaa yooyee ngan la waaye ndawi jurit yi ñooñu ñooy seen royukaay waaye xam leen na adduna bi tey yàlla def na ko muy benn néeg am na ñoo xam ne ay yàqkat lañu ña nekk ci seen kaw mooy yahud yi ba nekk franc-maçon yi dañoo jàpp pour ñu contrôler adduna bi il faut ñu def ñépp ay mbaam def ñépp ñu doy di loolu nag moyen ba mooy lan nañ tasaari sport ci seen diggante nga dégg benn mbër moo xam ne ponkol mu ñu couche mu taxaw di bakku ñu ne fay nañ ko cent millions nga dégg ay footballkat ñu naan dana am ay revenu ay plus de douze milliards par an loolee moo tiital ndaw ñi ñu def leen la nga xam ne mooy ay idole artistes yi la nga xamee ni tey jii ñi nit ñi gën a fonk ci kaw suuf xataa sëriñ si xamul dara sax artistes yooyu buñ demee ñoom lañ dañ leen di yëkkati su ko defee ndaw ñi jàpp ne réussite mooy lii wallahi dañ leen di nax réussite mooy ngeen jaamu seen boroom xam seen diine jéem a liggéey doyloo la nga xam ne moom ngeen am mooy ci lépp loo xam ne ak yàq la loolu ci la yàlla di barkeele seenug dund heure bu ngeen dañuy seen boroom yàlla subhanahu wa taala rafetal seen wàccuwaay yàlla way xam leen ne tey jii yàlla nattoo nañu doomu aadama yi dañ leen daan créer ay place cinéma ngir woo leen yàq leen tey nag mbir yaa ngi dem bay fekk njaboot gi ca biir kër ya déedéet fekk leen ba kawlal ya sa doom bu jigéen ma nga tëdd nelaw waaye ma nga nekk biir Amérique ma nga biir France ma ngay jokkoo ku ne Canada loolee ay musiba la yoo xam ne bàyyi bu nekk war na cee bàyyi xel kemtaleel kattanam mbokk réew mu mën a doon bu ñàkkee ay ndawam échec na la nga xam ne moom mooy revenu bi gën a màgg bu réew di am mooy fexe ba ay ndawam ñu jàngal leen yar leen mi ngi noonu tey jii booy xool la nga xam ne mooy asiatique yi la bëri ci ñoom bi ñuy dem indépendance ñoo tolloo woon lan moo waral ñoom ñu yegg fi ñu yegg mooy même bu ñu gëmul alaxira dañoo yar la nga xam ne mooy seeni ndaw laajal ña nga xam ne nii ñoom ñoo dem Japon laajal ñu dem Corée laajal ñu dem feneen ñu wan la yar bañ fa fekk nga ñëw suñu dëkk yi loo fi fekk loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax lañ ciy mujj mooy yow bàyyi coono bi ngay am ci tabax kër ngay tabax kër yombul de coono bi ngay am naan da ngay wuti ay oto coono bi ngay am ci lu nekk nga dugg ci ci àdduna ba nga la way xamal ne la gënoon a yey mooy coono bi ngay am ba defar sa njaboot heure boo xamee ni nii lu ne am nga ko ci àdduna waaye sa njaboot yàqu nga perte nga àdduna ak alaxira amma heure boo xamee ni góor-góorlu nga ba njaboot googee nga teg leen ci yoonu yàlla teg leen ci ngërëmal yàlla na sa xel dal yàlla dana la teral yàlla dana teral sa njaboot ca booy demee alaxira xamal ne la gën a màgg la nga xam ne moom nga fay fekk mooy bokk na ca la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax nit ki day bu faatoo mbooleem ay jëfam dana dagg lu dul sarax boo génne woon wala xam-xam boo jàngale woon wala doom ju baax joo xam ne nii dara daa nekk di ñaan sa gannaaw loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax muy wane ne kon xutba bi bu jëmee ci ndaw ñi ngan la waay yow bàyyi xamal ne yaay référence ndaw ñi bépp bàyyi boo xam ne ni bëgg naa yar njabootam ngan la waay ne xeex ak bakkanam lépp loo xam ne ndaw waru koo def na moytu def ko lépp loo xam ne ndaw war na koo def na góor-góor lu jiitu ca ndax kat yàlla moo bind ndaw royukaayam bi gën a rëy mooy ay waajuram yàlla nañu yàlla boole suñu njaboot ca la nga xam ne bëgg na ko ca gërëm ko yàlla na yàlla def ñu suñu njaboot di njaboot gu yàlla gërëm yàlla na yàlla def ñu suñu njaboot di njaboot gu ñu yàlla boole ñoom ca àjjana yee gën a kawe yàlla na yàlla wëlbati la nga xam ne mooy doxalinu suñu réew mi wëlbati suñu ndaw ñi teg leen ca la nga xam ne moom la yàlla gërëm yàlla na ñu ndaw ñuy concours ci ngërëmal yàlla yàlla na ñu ndaw ñoo xam ne nii yàlla dañ leen ubbil ay wërsëg yow wërsëg boo xam ne dañ leen jàppale ca la nga xam ne mooy seenu jaamu yàlla allahumma rabbana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين